daleen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal Amadou bu Pastef yëkkati na ay kàddu dal di koy jëmale si lu sabab ginnaaw ba parti yu nekk ci opposition bi tànnee ñuñ tabb seen liste nationale yi ak seen liste départementaux yi li ni mel sabab ñu bëri ci parti yooyee dal di jaaree foofee éclaté ñu bëri ci seeni militant dal di tas gedd waaye parti bii di Pastef di parti bu nekk au pouvoir moom ginnaaw ba mu amalee ay investiram jëmale ko ci liste national ak liste départementaux yi loolee jurut benn fissure kenn ku bokk ci ñoom génnul gedd kookee di Amadou Ba daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko ci lu sabab phénomène boobee daal di am ci réew mii di Sénégal kookee di Amadou Ba ne contrairement ak yeneen parti yu nekk ci opposition bi ci réew mii di Sénégal ginnaaw ba seen président wu parti bii di Ousmane Sonko di doon tànn jëmale ko si ñu war a tabb ci liste nationale bi ak ci liste départementaux yi kookee da cee daal di impliqué kullu leader bu nekk ci parti bii di Pastef mais ci kullu département kookee di Ousmane Sonko dafa daal di laaj leader yu fa nekk ñu daal di tànnal seen bopp ñu ñu war a daal di tabb ci liste nationale bi ak seen liste départementale yi mais li ni mel nag moom moo sabab amul kenn ku bokk ci parti bii di Pastef bu génn daal di wane meram wala frustration ndax ne kookee président Ousmane Sonko de manière démocratique la prosédé ginnaaw ba muy tànn jëmale ko ci ñu bokk ci parti bi waaye ne boo demee ci yeneen parti yu nekk ci opposition bi foofee dañuy am benn président wu parti boo xam ne ne lu ko neex lay daal di décider kookee bu ko neexee mu daal di tànn ki nga xam ne sax démb la ñëw ci seen biir parti bi te kenn du ci mën dara te li ni mel nag moom moo jur ñu bëri ñu bokk ci parti ci opposition bi daal di génn mer ginnaaw bañ amalee seen investiture ba noppi.